mbokk yi daleen nag jàmm ci bilimametti.com comme à chaque fois ñu ñëw ak ci seen revue de l'actualité nekk li nga xam ni moo a fës ci xibaar yi a xew a fës xam ni moom mooy Assane Diouf bàyyi nañ leen ñu ñibbi seeni kër ginnaaw ay fan ñu leen téye fa li nga xam ni moom mooy prison bu Sébikotane fa li nga xam ni moom mooy université Cheikh Anta Diop bu Dakar ay affrontement amoon ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy wa waa Kekendo ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Ndefleng di ñaari groupe yu nekk université loolu dinañ ko gën a yaatal ci biir seen revue de l'actualité buñ ci toftalee yeneen xibaar yi nga xam ne xew na fi mu doon seen revue de presse ngeen koy am ci biir seen site d'information limametti point com ñu daal di koy dooree fële nga xam ne moom mooy université Cheikh Anta Diop euh, bu Dakar nga xam ne jamono ji ñu bëri euh, ñu ngi leen di bàyyi xel loolu nag li ko waral moom mooy ay altercation maanaam ay xeex yoo xam ne amoon na euh, ci seen biir ci ñaari groupe yoo xam ne nag ràññee nañ leen ba université di ñii di waa Kekendo ñeneen ñi di waa Ndefleng ñu bëri yaakaaroon ne nag problème ethnie moo leen boole ginnaaw ñaari ethnie yi ñii dañoo nekk ay séeréer ñeneen ñi nekk ay Joola mais ginnaaw bi jàmm daal di dellusee ci seen biir nag li nga xam ne moom mooy tànku jàmm daal dinañu xam lan mooy fond problème bi euh, li nga xam ne moom mooy information yi ñu jot euh, moom mooy ñaari étudiant ñoom ñoo doon xeex xeex bi nag li ko indi moom mooy kenn ki dafa yore woon moto Jakarta daal di mbëkk euh, morom bi ginnaaw loolu nag arme blanche sax daal di fay génn kenn ki jël paaka jam morom moom loolu nag moom moo indi émeute bi ndax ku ci nekk sa groupe dafa ñëw daal di lay jëlal loolu nag moom mooy fond bi nga xam ne amoon université Cheikh Anta Anta Diop bu Dakar ginnaaw gi nag yàlla wis na si ndox mu sedd ba ñu ci daal di dox tànku jàmm ba ñaari groupe yi ah, daal di juboo leneen loo xam ne daal dinay marqué actualité bi ci semaine bi di ki nga xam ne ah, moom mooy Madiambal Diagne bi nga xam ne nag mujj na ko def ci chronique bi nga xam ne chaque di da koy def ci le quotidien sortie bi nag neexul ñu bëri ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi loolu nag li ko waral moom mooy ñu bëri dañoo jàpp dafa daal di ko évoqué ah, wàllum ethnicisme ci nga ci li nga xam ne moom mooy Euh, boobule jaarale ko nag ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko euh, ginnaaw manifestation yi nga xam ne amoon na fi bu yàggul dara moom mi ngi accusé ni Ousmane Sonko moom moo nekk à l'origine de loolu yëpp te ñoo xam ne dañoo jóge woon fële nga xam ne moom mooy Casamance dañoo ñëwoon infiltré ñi nga xam ne ñoom ñoo doon manifester di yàq ay biens publics loolu wax na ko leneen aussi wax na ko ci euh, nee na wàllum ethnicisme ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko daf koy daal di prôné bu baax maanaam daf koy daal di fësal ñu bëri nag daal di dénoncé kàddu kàddu yooyu noonu daal di koy nakarlu bu baax wax ni loolu àndul ak li nga xam ne moom mooy suñu doxalinu réew ndax dafay xaajale eh, xeet yi nga xam ne am na eh, biir Sénégal ñu bëri eh, loolu la daal di xalaat ba tey ci ki nga xam ni euh, moom mooy Madiambal Diagne sortie bi nga xam ne def na ko ñi nga xam ne ñoom ñooy waa CORED di kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ngir saytu dëggal gi ak jubal ji ci euh, bërëbu taskatu xibaar yi nekk Sénégal ñoom nag daal di nañu euh, condamné bu baax propos yooyu ñoom nee nañ ki nga xam ni moom mooy Madiambal Diagne li mu wax dafay daal di tas li nga xam ni moom moo nekkoon Sénégal maanaam déggoo gi nga xam ne amoon na ci diggante xeet yi fi dëkk loolu nag waa CORED ñoom ñoo ko daal di condamné ginnaaw sortie bi nga xam ne nag Madiambal Diagne def na ko mu daal di bëri coow lool ki di Guy Marius Sagna ak li nga xam ne moom mooy Assane Diouf mujj nañ leen bàyyi ñu daal di ñibbi seen kër ginnaaw ay fan yu bëri yoo xam ne téye nañ leen fële nga xam ne moom mooy prison bu Sébikotane nag ginnaaw loolu Guy Marius Sagna daal di génn moom daal di def sortie moom nag sortie boobu nag li ko waral moom mooy déplorer condition yu métti yi nga xam ne am na ci prison bu Sénégal profité na ci nag daal di wax ni moom daal di nañ koy sonal sonaloon nañ ko torop ci prison bi nga xam ne nekkoon na fa defoon nañ ko si defoon nañ ko sax loo xam ne xel nangu ko maanaam maanaam simmi ko eh, ba ni ko ay waajuram eh, juree woon loolu nag daal di choqué ay sénégalais yu bëri moom nag fi mu nekk ni nee na combat am eh, moom mooy ñu daal di joxaat gëdd ñi nga xam ni ñoom ñooy détenu yi daal di leen teg ci ay conditions yu baax loolu nag di ay kàddu yu tukkee ci ki nga xam ni moom mooy Guy Marius Sagna ginnaaw bi ñu ko libéré fële nga xam ni moom mooy prison bu Sébikotane leneen ci actualité Diary Sow ñu daal di koy seen li nga xam ni moom mooy Saint-Louis ci benn euh, forum boo xam ne mi ngi tudd exclusivement euh, féminin xale bu jigéen bi nag toogoon nañ lu yàgg kenn gisatu ko moom mi nga xam ne nekkoon na fi meilleur élève euh, du Sénégal ginnaaw forum boobu nga xam ne ba mu fa demee daal dina fay défendre ay propos ay propos yoo xam ne nag ñu bëri ci sénégalais yi ñi ngi koy nakarlu lu ci mel ni li nga xam ne moom mooy polygamie bi nga xam ne wax na ci nee na polygamie bi nga xam ne am na Sénégal polygamie abusive la leneen xam ne wax na ci euh, moom daal dinay fësal bu baax ne moom euh, fémi féministe la maanaam bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy défendre ak ak yelleefu euh, jigéen ñi di ñaax sax ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi ñu daal di dund selon ñoom ni ñu ko bëggee mais pas salon ni nga xam ne société bi noonu la bëggee ñu dund loolu nag ñu bëri ñi ngi koy nakalu ba am si ñoo xam ne sax daal di nañ koy tontu daal di def poste daal di ne ko yow mi jaare saw nekkoo tubaab maanam nekkoo koo xam ne ku weex nga sénégalaise nga te it fi nga xam ne moom mooy Sénégal dëkk la boo xam ni dafa am ay réalité loolu nag moom mooy ay propos yoo xam ne tukkee na ci yenn ci ñenn ñi nga xam ne ay internet lañ nekk ci internet bi doon wax ci kàddu yooyu nga xam ne Diary Sow yëkkati woon na ko ñu daal di jeexale sport wax ci li nga xam ne match bi nga xam ne moom moo doon opposé démb Sénégal a Congo match boo xam ne ñu ko doon footballé fa nga xam ne moom mooy Congo match boobu nag ndam demu ci ndam diggu ci 0-0 la naa la daal di mujjee bu duggul ci benn ka ci benn camp ñu leen di wax ni nag match boobu mi ngi doon conté ci éliminatoire kan bi nga xam ne war nañ ko amal fa li nga xam ne moom mooy mille vingt 2022 wala mbokk internet yi loolu lañ leen indiloon tey ci seen revue de l' ne nekkoon li nga xam ni moo gënoon fës ci xibaar yi fi jot a xew ñu wax comme toujours ngeen continuer di topp seen site d' information limametti point com ngir dara bañ leen raw di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen i